وحلو الأقنة من لساني يفقه قولي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بقي الأمي جامي صحبه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وقنا بني سنتي يالا دولي سنتي يالا بابا دولي سنتي يالا مي مي كاتن من يفيك بين جالي سواري دفعتاني فجر دي والحمد لله رب العالمين الحمد لله دائما وأبدا الحمد لله كثير أهم على كل حال من ينجي سنتي يالا سنتي وأمر أبا مدعو دي جولي سيون جبي صلى الله عليه وسلم أكوا كرب أك صحابة مي أكي فقامي تفسنا بيوم القيامة يا يالا سمع يالا يالا بولي سيون ويالا جامع إندوك fanaana ko yàlla mi jaamal yàlla ñu yàlla fal jaamal yokk ñu sutura yokk ñu kàttan yokk ñu wér képp ku feebar nekk si lopitaan bi nekk si kër gi yàlla mi saafara yàlla yàlla foga sa bopp yàlla yàlla sulam bu wér mu ànd aafiya yàlla yàlla may aafiya yàlla yàlla may aafiya jur si jur yàlla yërëm leen yàlla dëkk leen janatu fi daws maa alladina anama allahu alayhim min annabiina wa siddiqina wa shuhadaai wa saaliina xasuna ulaayka rafiqa ndaw yi yàlla sàmm leen yàlla aar leen laxalif yàlla warsaka leen xam-xam warsaka leen liggéey warsaka leen àndandoo yu baax waaye jigéen yi yàlla sàmm leen aar leen yàlla defal ñu xewali àdduna xewali àllaaxira mu ci safara mbokk ju di am di jàmm ñu waa fii si daaray Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di jàngale kër ma boobu ba léegi ñu waxtaanee xewal yi nga xam ne nay fekk julit bi jullit bi nga xamee ne jaamu yàlla rek lay def si la doon def si kaw suuf bañ a bokkaale yàlla yàlla subhaana taala commencé nag di ko defal ay xéewal si biir bàmmeelam loolu nag nekk dunde bi nga xamee ne mooy dunde barsak te dunde yowmal qiyaama ñëwagut comme ni ko yonent bi sa sallam waxee mu ne yusa yasaau llahu qabra mumin fala yadiqu alayhi qabruhu allahu akbar yonent bi alayhi salaam mu ne yàlla dina dina yaatal bàmmeeli jullit ñu ñëpp gis nañ ne bàmmeel lu xat la xam ta xataa bu ñooy dugal ni si bàmmeel ñaari nit rek ñoo a dugal du passé xataay bi mu noonu ñaari nit sax dañoo wengalu su ñooy dugal su pour wengalu pour génn xool la ne loolu naka la xatee julit bi nga xamee ne dafay jaamu yàlla si kaw suuf jaamu yàlla bu leer yàlla yàlla boo xam ne am benn bokkaale am benn shirk mu ne yàlla subhanahu wa na yaatal bàmmeelam te dara du ko xatal foofu maanaam yaatu bo yaatuwaay boo xam ne kenn du xam naka la toolu yém sa salama ne mun ne yulbasu muminu min libaasil janna fala yakuna fi kafanihi kama nazun mu ne ko sa si baamelam yëre yañ ko solal yëre yu jóge arjana la ute naag précaire bi nga xam ne moom mun lañ ko suuree parce que ñu ñëpp dañoo foog ni ah kooku de si précaire bi rek la moo nekk ba faw déedéet kooku ndik xewalam bànneexam commencé na ci bàmmilam foofu ñu dal di ko indi si si sëluwaayu arjana ya nga xam ne amul raapa amul amul tilim amul sufune maanaam ak ànd ak bu neex nag waaw xet bu neex mu nekk si bor ne bu nag di yaakamti nag yàlla subhana taala tukkil àdduna ndax ñu mun a dem si taxawaay boobu nga xam ne ñëpp taxaw si kaarami suñ borom ku nekk mu aate la sa jëf in kaana xayran fali yahmadillah wa in kaana charan fala talumana illa illa nafsak bu dee yi nga sant si yàlla bu dee safaan ba nag boobaa nag doo mere kenn sa bopp rek ngay mere ndik yaa ko fi liggéey ndik ku nekk rek lim fi liggéey lañ laa fay foofu bon nag bon bii tamit beneen xéewal boo xam ne yàlla subhanahu wa taala na ko defal jullit bi waaw mooy ne mbuba yuñ ko fa solal mu ngay jógee arjana te mu ngi si biir bàmmeelam macha allah bon na kooku bu demee ba yàlla subhana taala aate jaami yëpp fan la moo dem arjana fekk fa xéewal boo xam ne kenn mun laa war naka la toll mbokk julliti bon mbokk julliti nañ leen ginnaaw góorgóorlu ñu liggéeyal pour fu ñooy dem ëllëg suñ bàmmeel bàmmeel ni ma ko waxee woon si waxtu waa waxtaani passé borom xam ne bàmmeel amul lampa baamat amul amul eh, ne weer eh, weer bi génn na leeral ko déedéet baamel amul toj laayit baamel amul ne xaar sama taal fa sondeel ndax mu leer déedéet lu ko fay leer lu fa leer sa baamel rek sa jëf boo xam ne jëf ju baax bi nga doon liggéey fii si àdduna moom rek moo la mun a leeral sa baamel bon xéewal baamel war nañoo comme comme ni ko yéen soo waxee inna azabal qabru al xaq waaw mbugali baamel rek dafa am. waaye nag xéewal yi bàmmeel tamit am na bon yii yonent bi alayhi salaatu salaam ñu wax nag xéewal yi nga xam ne julli bi na ko amakum si bàmmeelam bokk na si ne moom bàmmeelam du xat mukk ñun si suñ gis-gis nañ ko gis romba gis ne xoolal bàmmeel yëpp ñaata lañ fi suul xoolal naka la gaa yi jigéeñante bon lii xat na waaye kër googu <laughs> mooy këri dëgg bi am na si ñoo xam ne seen yaatuwaay bi ñu ne fi bot doomi adama m si gis-gis gën a si biir di xool di xool ba a fa fa sa bot m subhanallah ñu ne am na ñu xam ne seen bàmmeel noonu la waaye am na ñu xam rek seen dina xat-xat boo xam ne yàlla ñu ci yàlla muccal bon li ñoo waxtaanee rek mooy bànneexi bàmmeel li nga xam ne yàlla subhanahu wa taala mu ngi ko juriti ñu koy jaamu te seelal seen jaamu banyak a def gis eh, eh, eh, bokale ak ngistal yi nga xam ne dafay a jëf ya na ci yàlla muccal yàlla defal rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban naar yàlla ñu defal suñ bàmmeel ak bàmmeel yu julliti mu nekk bàmmeel yu yaatu waaye tamit ñu bokk si ñi nga xam ne na leen solal si mbubi arjana ya balaa ñoo dugg arjana fekk ñu ngi seen bàmmeel yàlla ñu ko yàlla defal waaye defal ko mboolem jullit allahuma rabbana atina fi dunia hasana